bile jàngale nag mu ngi ñëw gannaaw bi nga xamante ne kuréel bi nga xamante ne moo séntu wàllum taskati xibaar yi si biir réew mi fii def nañ ay gestu si li nga xamante ne moo nekk jafe-jafe yi nga xamante ne moom la jigéen yi dee jànkuwanteel si seen bërëbu liggéeykaay yi jàngale bi dina jàppale pour ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci bunti taskati xibaar yi pour ñu mun a ràññee li nga xamante ne moo nekk jafe yu mel ni sexual harassment si seen bërëbu liggéeykaay yi Lamine Jaxate di programme manager si Gambia Press Union moom wax na lan lañ yaakaar si ñi nga xamante ne ñoom lañ nekk di jàngal lii di training bi nag su jeexee dinañ leen jox lii di ab policy pour ñu daal di ko tasaaroo si media outlet yi nii di nga gis ne nag ñëpp dinañ ko mun a jëfandikoo te xam lii nag dinañu dimbale trop pour ñu daal di contrôle lii di nga xam ne moo di sexual harassment. ki nga xamante ne moo fa toogaloon kuréel bu yore wàllum jigéen yi ak xale yi ci biir réew mi moom wax na ne dinañ mën a dimbale pour ñu mën a xeex li nga xamante ne moo nekk ak sexual harassment. ñun nag am nañu problème trop parce que nit yi nag duñ dee faral di génn di wax lu xew parce que nag ñu bëri dañ ragal lu fa daal di topp te nag ñu bëri gëm nañ ne suñ waxee lii sax duñ ci daal di def dara ministre bi nag pare nañ pour daal di dimbale liggéeykat yi institution yi yëpp nga gis ne nag ñoom dinañ mun a génn ak nit leen joxe lii di nga xam ne moo di harassment bi nii pour gis ne ñu daal see def matuwaay. Demba Kande di kat si bunti taskati xibaari si bunta bu gën maga ci bunti kay di University of the Gambia moom waxna lan motax ñu jël ñi nga xamantene ñoo liggéey si bunti tassé kay xibaari pour ñu jangal leen nak wax nañ ne gi taskati xibaari ñom am nañ liggéey bu maga ci li té nak ñom dinañ leen jangal nu ñoo di toppee di nga xamné nak modi sexual violence bi ni te nak nekkut ne rek sa liggéey taskati xibaar yi nii waaye si biir dëkk bi tamet Mr Jaxate moom moom continue na di wax naka la ñooy def pour ñu mun a jeexal li nga xamante ne mu nekk sexual harassment. lii li nga xam ne nag moo di luwa teg nañ ko te nag ñi di nga xam ne moo di Gambia Press Union dañ daal di ah, dugal si seen lawyer di nga gis ne nag lii di nga xam ne nag moo di problème bi dinañ ko toppa nuñ ko war a toppee te nag ñuñ ko ñu def ko nu mu war a defee and then ñu yóbbu ko fële ne la sa néegi attekaay ba jàngale bi nag bokk na si projet ki ñetti at bi nga xamante ne kuréel buy séntu si wàllum taskati xibaar yi ci biir réew mi ñu ngi koy def kuréel bi nga xamante ne moo fi taxawal ñi nga xamante ne ñooy taskati xibaar yi ci biir réew mi ñoom seen liggéey moo nekk pour aar àq ak yelleef yi ñi nga xamante ne ñoo nekkaat taskati xibaar yi ci biir réew mi fii setu Ba Paradise TV News